genn kàddu guñ mën a yëkkati goo xam ne mënal waxu ko mënutoo nekkaat ndax sëriñ Saliou danoon wax moom bu ko ñëpp xamee wax ci jarte baril kon li ñu fa wax lépp mënal wax na ko néew bi nag dañu koy teg si dañu koy dañu koy jaarle si si si jëwriñ sëñ Modou Jaxate ñu dëkk sant lool Mbàkke sëñ Modou sant nañ ko gis nga mag bu ànd ak xale ànd ba rafet sa mag ma la Serigne Modou dafa wàcc boppam ba mu tolloog suñu dimension mu ànd ak ñun waaye nag dinañ sant jëwri ñu toog si ginnaawam ba yebuñu ko wàcc gi mu wàcc ñoom yebuñu ñu mbàkke ñii ànd bu rafet lañu ànd ànd bu joxalante cër ndax sëñ Modou du gone waaye su àndeek ñii te dara xewul moom mi ak mbaaxama mbàkke damaa wax ni liggéey bi maneel maneel wax na ci lu bari ñun seede rek la ñuy des ñii ko seexal ci tool yi ay xale yu bëgg lañ te yéene te jox ñu cër te déglu ci li ñuy def waaye nag suñu borom dañoo dimbale ba lépp loo xam ne lu ñuy def la dañ ko waxtaanee ñu ko seqanteel ndax jëriñ yooyu ñoo si yem képp suñu borom ñoo moo moo moo dogal rek bu yoon xatee kenn ko jiitu moo tax rek ak ñuy tudd ma sàmba ni moo si jiitu waaye ñu ñëpp si bokk yem ndax xalaat ba jóg dañ ko waxtaan ba jubóog ñu door kaa yëkkati loolu rek mbàkke loolu la ñuy doxee ànd bu rafet la ñuy doxee bu yiw lépp nag ngir bëgg ndam rek ndax liggéey bu fekkee dañ kaa seq ak suñu ay nawle yow nga am ñoo ko seqanteel suñu soñoon yow yaa ci raw xale yi loolu lañ ma wax toujours ba dañu maa ñaante ji dañu ñoom seen benn doléance bi bi si gën a rëy mooy liggéey bi nañ ko gën a yaatal ñoom moo ko ñu ngi di toog loolu nag su amee yéene ju ñu am si yow la bëgg nga am dam rek kon de dafa mel ni bu dee cant man ne wax na lépp ñu laa sant nañ bu baax ñu ngi lay sant bu baax di ñaan suñu borom yàggale la fi loolu ta ànd ak wér ñu ngi santaan mbooloo mi nag mbooloo mi nga xam ñoo ñu jiital ànd ak ñun te ñu gën ñu fuuf man ñëpp ma ci gën waaye ñu ngi ànd ak man Mbàkke ci seen mbaax nag la ndax loo lu mu doon dana naan sëñ Massamba nii la doxee ak nii di si waxtaan ak man ci loolu kon nag loolu bu ñu ànd man di ma tett bu mag si ba fii ñuy tudd sama tur suñ seen ak mbaax rek waaye su leen neexoon dox si ba fii ni ko mën a waxee nag amuñu ku ñuy lim ñëpp nag xanaa sëñ Mourou day ko xam mu nekk suñu kanam nekk suñu kilifa moo tax ñu tudd ko te buñ ko tuddee yóbbaale na mbooloo mépp Mbàkke sant nañ bu baax liggéey bi daal ñëpp jàpp nañ ci jëwriñ ñi kenn ku ne ba dëkk ba nga nekk nii ñu doon ñëw biir jëwriñ ñëw kenn ku ne ndimbal na nga la ñi nga sekkanteel ñu war saa si liggéey ba tàbbi nañ ko waaye ñu do am nga mbooloo moo xam nag nekk si mbedd yi yàlwaan naan nangam nangam déedéet dañ koy sekkanteeki nit rek kooku yëkkati seen alal tàbbi ci waaye ñun ëpp nañu taxaw nag naan maaja déedéet loolu defuñu taxaw ñu naan nii si mbedd yi naan wow déedéet di tudd day tudd déedéet dañ ko séqanteeg nit rek liggéey bi jot ñu bëgg barkeelu si liggéey ñu barkeelu si bu côté boobu moom lu ma ci wéer ma xam ne loolu te mi dafa am yóbbante bu mu doon yóbbante ci mbooloo mi ni moo naa ko wax ci mbooloo nee na nee na mbooloo mi nan gën a jàpp jëmm ji nee na mbooloo mi nan gën a fonk jëmm ji ndax nee jëm jii ji doomi sëriñ Saliou sëñ Modou nee na jëmm jii di sëñ Mourtada nee na ñu mbokkal sëriñ Saliou xam nan mooy kan te dara may ko ko nag lu dul jikkoom ak doxalinam te sëñ Modou nee na képp ku ànd ak moom ku yàlla dimbali ba nga nekk ci ginnaawam war ngaa xool ni muy doxe nga roy ko ci te mooy sax ci ndigal bàyyi tere loolu la sëñ Modou waxoon ni naa ko wax ci kanamam sëñ Modou nee na sëñ Mourtala mii da ko yónni woon ci sëriñ Cheikh bërki dem boo njaay am ay kàddu yu mu ko yónni ci sëñ Cheikh nee bi mu ñëwee ci sëñ Cheikh mu sëñ Saaliw ni ko sëriñ Murtada mu sëriñ Saaliw sa taaliba bi day mënu ko mënu ko bul yàggale kooku sama sëriñam te man mii di wax ak yéen day sëñ Murtada sëñ mustafaa mu sëriñ Saaliw dugal na sama nopp man làmmiñam sama nopp ni ma sëñ Murtada mu sëriñ Saaliw mi mooy tawfeexu sëriñ Saaliw kon xaw ma lu waay am xaw ma lu waay am waaye ñun nan ñun xam li am te téye ko maanaam nan ko téye te téye gi du dara nag lu dul jëfe ndigal bàyyi tere topp ci ginnaaw fu mu ñu joxoñ te nag du ñu joxoñ fenn nag fu dul fii def loo wuñu leen du lii kon nan ci sax nan ci nekk ci ginnaaw kàddu yooyu la sëñ Modou waxoon